عوذني الله من الشيطان وخد لي منافع الأوتان بعد الهزبلة وبعد البسملة وبعد الحمدلة وبعد الهوقلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أحمد بن عثمان may ñëw di jàllale ay kàddu ay kàddu yi jéggulu yoo xamante ne bii dana koy jëmale ci cheikhu shuyuux alxalifa kilifa kilifa yi di ko jëmale ci Seydina Abbas ibnu Cheikh Ibrahim di ko jëmale ci Serigne di ko jëmale ci kilifa yépp kilifa yi diine yépp ñu sant Mbàkke Buso Siyek Ñasak Laayek ñépp ndax itam nag jamono day toll foo xam ne nga mën a wax léegi sax waaye mënumaa ñàkk bañ a wax euh, moom baa mënumaa ñàkk maanaam junj li nga xam ne moo nekk ci xol bi waaw ma xalaat loo ko xel mi wax loo ko làmmeñ bi ngir dettal ko ñiy déglu munta ñàkk mooy di jéggulu képp koo xamante ni bi kilifa diine nga di jéggulu képp koo xamante ni bi kilifa àdduna nga kilifay diine yi cheikh mouhamadoul muntaka mo nek ci bopp bi kilifay adduna bi par rais Macky Sall mo nek ci bopp bi may djeglu khalifa bi ak ñi bok ci diine l'islam ñeent ya. di djeglu président bi ak ñi bok ci dawla bi yépp di djeglu itam suñu mbokk chrétien yi parce que soppi yi fépp lañ dama gis fan yi bi nga xamanteni bi mbir yi xewna ci xalé yi ma gis li nit ñi daj soppi ma kersa wu ci lool motam nu ma ñàkk baña jall li li di len jéglu di jéglu ñepp di xam leen ni rek ala kulli halim yalla bi mu nu indé fi rek lanu ni kat wala wanakum bi shay'in min al khawfi wal ki fi joté wala bu ragal joté manam lu nekk di xew ci ñun ni ak bëcëk di xewé rek ni wër wi ak jant bi di génné rek te gi nu rek eh, ma bëggoon rek waa réew mi dalal seen xel moo xam kilifa yi moo xam ñi ñu yëlif moo xam kilifay diine yi moo xam kilifay adduna bi nañu dalal seen xel ci man ci sama jëmm ji ndax ku tedd ki daf maa waajal ba ma ne cocc fi mu toll nii lépp loo xam ne luy yëngalum réew la wala luy naqari xolu doomu aadama du jóge ci man waaw du jóge ci man niyatan du jóge ci man xawlan du jóge ci man fi'lan waaw du ma ko yéene du ma ko wax du ma ko def ama jëmmi nag sama yang ngaat ak ni may amuser wa ak ni may dundee ko tedd gi lolou bo xoolee forme bi man na la nax lolou it bëgg nit ñi xam ko li ñuy tuddé sécurité itam bu dé man sama jëmmi bop ji wax dëgg yalla hafizani daf may doy hasamani daf may doy najjani daf may doy ndax idha qattatu tazza arshullahi wa sabbahat malaikul ilahi minum ko tedd ki ben harf ke bi bind manam aras di yëngut malaika yi di sabal lolou xajul ci dara Mata kay man xana bu ma bëggee lu ma aar foofu koy wut maanaam mbiri sécurité yoy xañ yu xew ci jamono la rek waaw lolu dina ci ñew duma ci sori ndax euh, bala yag war na maa wax wax ju leer ju yaatu wa wax histori gu diwaanu sirkul Jawahir fi israël sarair way li da mën ta ñak balu app ñëpp nak ak di sant ñëpp itam ci ciofel gi ñu may won ak yëg-yëg yëpp Cheikh Bassirou Abdou qadir mom dama koy ndax itam wax deug yalla deug la ñepp ngi wane ak yëg ak ciofel way mom daf ci xababal motax ñu koy sante te diko baye ak mama ba ci njitul rew mi wan na ma wan wan amna lu ma ci wan loo xamanteni ni ci sama diggante ak mom te état état la bu liggéeyam <laughs> moo xam waaw mo xam mo xam nañu koy doxalee ak seeni directive bu ñu ko joxé ak ñu koy digal ñu koy defee nañu koy defee naka jekk lolu mom ci état yépp la waaye yooyu lépp daa jotewut ak li may wax dara man daal fi mu toll nii sama njaboot euh, ñi nga xamante ne bii ku ci à partir de maintenant ku ci xamante ne bi dangaa bëgg a taxawal cellule de sécurité wala dara ah nga dem ci loi bi dem ca intérieur ah dem ca intérieur bu ñu la autorisé pour nga taxawal ko ndax gis nañu société privée yi di am ay sécurité ak ay yu demee noonu waaye man yooyu yëpp sax man dama cee nekkul apa man yooyu yëpp dama ci nekkul wax dëgg yàlla bañ naa ko ba dama tëj sama bopp kaso ay ate ate ate at di bind ci ku tedd gi looloo ma ñor waaw loolu lay dund itam bëgg gi ma bëgg a dugg kaso nag kooku ci xol bi la sama diggante ku tedd gi la loolu moom ça rien na voir du càggi nag damay jóg di tooñ pour dugg fa wala yu demee noonu déedéet loolu moom noonu lañ ma mooñaalee ndax ku tedd gi moom moom féete ma fépp nekk sama kaw féete ma kaw féete ma suuf féete ma biir ak biti ak ndeyjoor ak càmmoñ ba ñàkk ba ni may ñaane mooy noo nii di la bàyyi sunu bopp ak sunu lépp ak sunu ñëpp waaw kii kay kon manam wutuma fenn lenn damay maslaa ka kii rek diplomatie ak yore samay façon rek geetaru gi nag moom faw ma koy def ndax ak soldat ci boppam moom manam dafa dafa nekk ci sama xol toujours damay faral di wax ni discipline militaire moom moom lañ fi war eh, eh, a instauré ak yu demee noonu manam ma bëgg rek Sénégal yi ya, xam ni gis ngeen ko tedd ci ni ma suturaale ak it ni mu def ci ndaw ñi nga xamne dañu fété ak man nga xamni seen xel xalaatu nekk di yu bok ci ñuy sami xéer ak ci ay deret ñoom jërëjëfe Serigne Touba waaw mo nekk ci ñom loolu itam wax dëgg yalla ak cant la moo tax ku tedd ki ñu nun koy santé bu ko défé loolu nak waa yu mi xam bu soobi yalla bala yàgg bala at may jeex wana ma def sorti médiatique bo xamanteni bi dina gëna yaatal leeral sama njaboot njaboot ñu fonk ndax lu wéx lu wéx àjjana lu weex lañu fay sol kenn du fa sol couleur yi ay noo de fii la xewee waaye àjjana moom lu weex rek lañ fay sol kon nañu xewal nañ dellu cosaan ci jamono yi sëñ mu Moustapha dem ci dellu ci perkaal waaw ba noppi nag waaye du tee nag faw ngeen ciy boole costume yi ndax costume <laughs> mooy temporel bi faw ngeen ciy boole kii nañuy nañuy yiw rek waaw nañuy yiw ak a sell rek man nag faw may geetaru waaw ndax dafa am lu may incarné loolu moo tax waaye waaye gettaruloo ma kenn ma kenn tenu bu ñu naan kii sécurité la wala yu noonu man kenn mënu maa sécuriser ku dul ki ma moom waaw def ci man lim ma ci fexe ba maanaam dara ñoruma lu dul moom ak yëfam ak i xasaayitam waaw loolu daal maa ngi balu ak war mi yépp waaw di balu ak ñëpp tey kii nag gën a ñaax xale yi di leen xiital ci ku tedd ki waaw ku tedd ki nag moom dara am njàngaleem moom imaanan wa ihsaanan weesuwul di lu baax di ko wax te di ko def wasalaam. Serigne Saliou Bousso dëkk ca Touba Guy Mbind ci euh, penc mi am day lis